jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ci euh, sunu people TV ñu dikkaat ak yéen ci li nga xamante ni moo gën a fës ci internet bi internet bi nag li ci gën a fës bokk na ci euh, soxna Aïda Diallo bi nga xamante ni dañu liir ci euh, site bi nga xamante ni moo di sunu buzz di ñu xamal ni soxna Aïda Diallo depuis bi nga xamante ne kooku di xalif général bu Touba di sëñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal mu yàgg fi loolu tàndar wér ba mu ne moom buggul benn yoon recevoir ki nga xamante ne moo di soxna Aïda Diallo dafa war a topp ci ndigal yi nga xamante ne moom la yoonu mouridisme woote depuis boobu nag ndekete di soxna Aïda Diallo mu ngi tëju ci euh, këram buggul génn buggul wax ak kenn buggul lekk buggul naan kon mun nañ jàpp ne loolu nga xamante ni moom la sëñ bi déclaré ne moom bugg ko recevoir benn yoon d'après sunu confrères yi nga xamante ne ñoo di waa sunu bës nee nañ boobu ba léegi bi nga xamante ne xalif bi wax na ko boobu ba léegi soxna Aïda Diallo kenn mënu ko wax ak moom kenn mënu ko teg bët waaye tamit buggul wax kenn d'après ñi nga xamante ne ñoo di ay jege ñaaleem ba tey dañuy des ak euh, ki nga xamante ni moo di soxna Aïda Diallo ndax gis nañu ne am na aussi benn kuréelu Baye Fall boo xamante ne génn nañu d'après site bi nga xamante ni moo di Diaspora 221 di ñu xamal ne ki nga xamante ni moo di soxna Aïda Diallo Baye Fall yaa ngi koy menacé nee nañu bu fekkee ne bëgg naa dund bu fekkee ne bëgg na am jàmm na bàyyi ki nga xamante ne moo di turu Mame Cheikh Ibrahima Fall bi nga xamante ne dafa am lu mu ci waxoon bu yàggul dara donc mu ngi noonu Diaspora 221 moo ñu xamal loolu que ne Baye Fall yi ñu ngi menacé ki nga xamante ni moo di soxna Aïda Diallo ñu jóge ci soxna Aïda Diallo jàll ci ki nga xamante ni moo di Mandiaye Seck Mandiaye Seck bi nga xamante ne wax nañu ne dafa dem fi nga xamante ni moo di foofu ca Grand Théâtre ca soirée Assane Ndiaye ba daje fa Thione Seck sekk Seck ak ki nga xamante ni moo di Ousmane Seck di papam dafa ñëw romb ki nga xamante ne moo di Waly Ballago Seck nuyuwu ko wax ji nag jub na coow boo xamante ne am na ci réseaux sociaux yi ku ci nekk di ci wax waaye gis nañu Mandiaye Seck moom itam génn def benn vidéo ne loolu ñuy wax amul Wally Seck magam la ndax balaa mu yëg ci kaw seen bi moom daje nañu ci coulisse muy waxtaan ak moom waaye comme que nag Assane Ndiaye moo xewle woon loolu moo taxoon bi mu ñëw ci kaw seen bi mu romb Wally dem nuyu ki nga xamante ne moo di euh, Assane Ndiaye ba tey ñu des ak ki nga xamante ne moo di Mandiaye sekk Mandiaye sekk moom itam ak ki nga xamante ne moo di papaam gis nañ ne ay ñaagas-ñaagas amoon na seen diggante ba pap di génn wax ci moom moom itam mu génn wax ci ñu gis ne ñagas-ñagas bi euh, depuis loolu amoon tuuti waaye ci mujjantal gi Mandiaye Seck génn na dem seeti papaam tuub wax na moom papaam moo ko jàngal moo ko dalal ba munul am lu ëpp papaam léegi nee na man sax sama papa léegi sama xarit la parce que ñu ngi waxtaan ñu ngi déggoo waaye teewul moom dafa ber yoonam gannaaw Mandiaye Seck ñu ñëw ak yéen ci ki nga xamante ni moo di oustaz Modou Fall oustaz d'après site li nga xamante ne dugal nañu ko vidéo bu mu def mooy dañu ne dafay défendre ki nga xamante ne moo di Pape Mbaye di góor jigéen boobu nga xamante ne mooy dund foofu ci diggante Pape Mbaye ak ki nga xamante ne moo di Sanex ndax gis nañu sortie bi nga xamante ne Sanex def na ko daal di wax ci Pape Mbaye ne ko ku la gàjjati bu ko faale ku la xoosati bu ko faale toogal jàpp sa ñàmbur nit ñi nag interprété ko ku ci nekk ni nga koo interprété waaye oustaz bi ñu ko laajee sa xalaat ci loolu dafa ne est-ce que wóor la leen ne Pape Mbaye góor jigéen la ndax nit dafay maandu te nee nañu nit même bu fekkee da nga koy jiñ njaaloo na fekk juróomi nit ñoo seede ne kii njaalookat la ñu mën ko dëggal donc oustaz loolu la xamle mooy est-ce que wóor la leen ni kii xamante ni moo di Pape Mbaye li ñu koy jiiñ dëgg la moo ko def wala defu ko bu ñu jógee ci oustaz bi nga xamante ne moo di oustaz Modou Fall ñu jàll ci leneen ñu jàll ci ba tey ànd ak diaspora 221 ci diggante bi nga xamante ni moo di Wally Ballago Seck ak kooku di Bijou Ngoné alors lañu liir fan yi ci Dakar live ne diggante Wally Ballago Seck ak ki nga xamante ne moo di Bijou Ngoné seen diggante neexatul lan moo ko waral moo tax nag ñu ñu jël suñu ay information daal di gëstu ba dugg fi nga xamante ne moo di diaspora 221 ñoom ñu xamal ñu ne Bijou Ngoné ci boppam wax na ne musul jóge ci Wally Wally Ballago te ñaanul yàlla jóge ci Wally Ballago Seck te du fa mos a ndax Wally mbokkam la doomam la mu ngi nekk ci saf boobu ba léegi donte sax mos nañ fi am ay ñagas-ñagas yàggu dara ba ñu toog waxtaanee ko waaye Wally Seck ak Bijou Ngoné seen diggante dara nekku ci loolu la ñu Diaspora 221 xamal ba tey ñu des ak ki nga xamante ne moo di Diaspora 221 ñu ñëw ci Thione Ballago Seck Thione Ballago Seck moom itamit wax na ci diggante Wally Ballago Seck ak Mandiaye Seck ndax ba ñu ko laajee noo gisee ak sekk Seck la ñu def keroog ca kaw seenu grand théâtre ba mu ne Wally Ballago Seck musul am problème ak Mandiaye sekk te keroog Mandiaye comme ni mu ko waxee ñu ngi doon waxtaan ci coulisses yi waaye yéen sites yi da ngeen di defar waaye tamit da ngeen di yàq kon nag nañu bàyyi di wax ay neefere yoo xamante ne yu xasaw xunnu la di ko jëmale ci famille ndax Thione Seck moom mi nga xamante ne mooy magu Assane Ndiaye ndéem ñoom ñaar ñoo jubbu ba bokk benn seen kon Wally Ballago sekk ak Mandiaye Seck amuñu benn problème loolu la ñu Thione sekk xamal mbokk yi mu nekkoon seen euh, rubrique bi nga xamante ne dañ leen ko defal mooy li gën a fës ci internet bi wéy leen di abonné ci sunu people tv jërë ngeen jëf